dara dara dara duñu takalé diko wax aussi né ko kër gi nga ñëw kër gi nga ñëw do fi am gàcce ndam rek nga fi am parce que ñun 17 ans yiñ def réew ak 1 an yiñ def kër si ku ñu gis si si si mbedd mi xam na ni suñu 1 an yi wax deug yàlla suñu tédé dañuy nelaw xalaatuñu dara le 23 lañuy fayé fi xalé yi fi nekk yépp ñi ngi gor gor raja bàyyiwul ben xalé bu nekk fi ñi fi tok ñëpp ñi ngi liggéey di xëy di gon maire yi troisième âge bi waa kër Siré Dia mutuelle baa ngi fii sincèrement baax suñu paree ci loolu Siré Dia mi ngi ci mbëru làmb yi Siré Dia mi ngi ci sport bi Siré Dia mi ngi ci basketteur yi waaye mais kon ñun lan lañ ko desee lu dul jox ko suñu région bi muy la région de Thiès mu jox ko Macky Sall dès le premier tour ñu falu loolu dafa jaratu nekk fii suma ligne di wax Ibrahima nag tey képp koo xam ni nii réew mi nga jógee te am ay ndomba tànk parce que ñu fi nekk ñëpp ay ndomba tànk lañu yoroon réew mi na ngeen ñëw taxaw fii ñu def photo de famille bi ñun ñëpp ñëpp xam ni ñii ñëpp réew mi lañ jóge loolu farata la jóg leen ngeen ñëw taxaw fii waaw farata la maam Biram Kane madame la maire Gogot Fall jëw leen Bambey laat jëw li ngeen gis nii tey ñun ñëpp réew mi lañ nekkoon yoroon ay ndomba tànk kon du ay caaxaan ñëw ñu kër Pape Siré Dia di caaxaan ni ñu jegee woon Idrissa tey noonu lañ jegee Pape si Dia te tey li ñu def tey ba lii ne ñi ñëwul sax moo ëpp parce que ñi fi nekk tap ay ñëpp ay ay ndomba tànk lañ yoroon kon tey nag dañoo fas yéene feddale suñu kóllëre ànd ak Ibrahima Lo mii tey di soog a ñëw engagé wu ci derrière Pape Siré Dia ñoo élire Macky Sall dès le premier tour incha allah